test yu bari test yi nga xam ne yëpp dañ ko war a def pour ñu gis ne am nañ wér-gu-yaram am nañ kàttan bi pour mun a dem loolu yëpp lañ leen di defal waaw su ko defee ñu fay foofu noonu ñu ñu soog a def léegi kañ lañ mun a start dem foofu noonu fu mu nekk nii commencé ko altiner daal mm. ba arjuma mun nañ faa nekk di dem tey tey tey sax suñu leen neexee ñu dem waaw su leen neexee ñu dem altine ba si altine altine laa wax waaw sai sam bila okay eh, fadil haidara nta ni kamina wala kaito ni sabalam eh, hmm. eh, nan lam nin kumu bar jar kedal kaito mu fulalde hmm. wala pengu kaito min ga kedal mun koti hmm. anin kis kis kaito jar kedal sab ko jar kedal sab ta mun dum fula nyaawta ngayin ka wala wo soto nyaabi nyaadi le anno ka soto mun tole ah, ah. pro hijilal sala ah, baraka abubakar fola senata mm-hmm. a ko kayiti fula ñama wole mu doctaro la cdr kayitote minen cdr be i la fo kurantete mhm. la men a tinna titano hijo la na yo ke la fo papareta a ka aka kayito min signé ka di la wala certificate ote mm ka cdr ko toña ite sitano le mhm. aman kura njebala me ya tinna titano mhm. wala mu medical certificate medical certificate ne aja ko ka fo ñamen kata damen dow kula ka kije anno dow ko dimitane mo jaatol min fama ɓe kendaro ka bataji sako momen mi sasari mm-hmm. wala nan ka lafi jannin takake za mol sa long jumala sitano anin jumala titano mm-hmm. yo o kayito a kaka soto min tole o mm-hmm. kayito ka soto rvth loptano bumbalto min ɓe bañin doron ita soto nola basse ita soto nola bansan ita soto no duwa ɗulaɗo ñum banko gondamanke rvth loptano mbato a kono itata jeeyi ɗula ñinin ka e ka fo ɗamen e records office ɓe haala ko kayitol ko records office doron mhm. ni ha fojirde ɓe sambala office o ñin to mhm. eɓe docteur ol taraje eɓe wistela fo tol ye dankene yañinna ko courantere min sitano sinawo certificat o sika yaadira okilim fana hijlal mhm. ah, fana kana baɗa fo lasɓe ɓeyta jurme jee usta kol kolani fana a o kummata bake ka to a ah, même fo ñin kayiti fulola boubacar ya fole ko a ah, datitale ka di mool sitanoje kaɓo tene lung kata juma lung talan sayi ɗin tala kata fo tala luuru pulaaro momoy joroke yetaje kana siide sayamba fulale ko momoy joroke yetañin kaytol topoto mm-hmm. kaydi folol pengurol ngol fula kake dame na office fulol to mm-hmm. ñin kaydi labo medical certificate mm-hmm. e bo sodo la bañol loptan ba damal no sitije sayn wato detata eh, rohi bëggoon ngaa yokka pour nit yi dem léegi waaw ah, comme li mu ko waxee rek ah dinaa si yokka tuuti foog naa ne nit tamit loo bugg a dem dem dem sa wér-gu-yaram war nga koo saytu parce que soo gisee nga fay dem da ngay dem pour aj yàlla jàppa sa aj bi nangu ko waaye su sa wér gu yaram su su su amute su manqué rek soo fa demee tam di nga ko def waaye nag yow sax di nga xam ne li ma def nii daal ah mooy loolu rek soo ñu ngee ñaax nit ñi ñu gaaw man sax su ma doon ñoom balaa ñuy dem fay nañ dem seeti seen yaram def médical ñu sa am médical certificate ba pare ñu mun a dem fay parce que mun ngaa dem fay nga ñëw ñu woon la ne yow doo mun a dem waaw di nga gis ne yu bari yooyu noonu di nga koy jëlee neneen nga ne foog nga dem parce que fay nga fekk sa wérgu yaram nekku fa soo ñu ngi leen di ñaax luñ bugg a dem dem nañ njëkk dem ñu wis wiste seen yaram gis ne am nañ kàttan ci seen wérgu yaram jaar na yoon pour ñu mun a dem aji waaw ñu ngi leen di ñaax tamit ñu gaaw dem mhm. buñ xaar ba last minute comme que comme niñ ko waxee rek last day pour fay bi mooy septembre weer wu es bi si fukki fan ak juróom mhm. soo ñu ngi leen di ñaax suñ ko munee tey tey sax nañ jóg ñu dem lopitaan RVTH ah. suñ fa eggee ñu dem records office waaw dinañ leen defal li war loolu leer na amut Banjul amut amut amut Basse amut Bansang amut Farfeñe amut fenn eh, i RVTH rek nga ko mun a amee mhm. eh, Imam Jaxate yo eh, maare mu harsa ti o kayite filande Kenya ni doctor no kaiti filande Kenya ni medical certificate medical certificate anga na mu medical certificate Kenya ni doctor no ise de kaiti na sere ti anka anke sere sere nya nga sere sahante nya nga sembe wanga alla wa hijjin gollen su dabarni Kenya ni ise de kaiti nanti ni Kenya ti medical certificate medical certificate ke anna akitene minna eh, ganni de sere un nyina kitana loptani dinkanu kusui ko bansang loptanu ma eh, eh farafenye ma eh, base yo bari eh, yirigi an sri lanka kitana no khus no a agamanya agata magamanya fo nga eh, banyulo loptan eh, khoreke banyulo loptan khoreke bane yani sri lawa kitana no nyai ina tinin no kube ti record office mm -hmm. ke ngana da banyulo loptan loptan ngana sri tirni minna ni record office nga ina non ko yanga ngana da no nga ikunna tuna ah, anan faydal ma eh, ken palle anari docteur um bange eh, docteur um khana an ah, visite na ti na atuti ankede sere yananga ah, alhamdulillah rabbil alamin sere sahante yananga eh, wattentanga ado semben khawanga lawa hiji golle a anas kayti ke kina ke kayti ka ina kinin no nyai ti gore kemeefillodu tankaraga gode ina kinni keñay mm-hmm. eh, na ga nak kun kitana ani kappa a ani dege to fayna iti waxtin kiñe nak Eh, waxta eh, pour na eh, ku kaytun ku sum mundu ni kapame ni denge jiyaye bari oda kuna hadanga na a daga sironga abito lagaren ne haso be a abito tammudo karago ko katta kenga serema kattaku ma ke wakati anagiri sasa sasa anada kaytun ku mundu ani si kapame ani denge do jiyaye hmm. onon bandiraɓe emin mbiya on no min mbinono wonde kaytaji docteur oɓe na woodi kaytaji ɗiɗi goto foof na hani heɓde ɗin kaytaji min kaalino on kayta ada no kayit ɗiɗaɓol ngol ɗiɗaɓol double eh, on woni eh, mm, eh, medical certificate medical certificate o ko woni medical certificate medical certificate ko doctoroɓe ɓe ƴewma ɓe ganda wonde an de ka neɗɗo mo da ka celluɗo aɗa jogui sembe ada wawi wadde golle hijjore nde ɓe mbaɗananam seeɗe so ɓe on kayitol noon on woni medical certificate mm. on then. on kayitol noon no wawino heɓede e kala lopitanuji mawɗi gonɗe nder leydi he bansan base farafeñe toon noon ɓe lopitanuji mawɗi ɗi foof aɗa wawino heɓde ɗum mais hikka ala fof to wawete heɓede so wona banjul loptan mawɗo o toɓe mbiyata records office ko toon tan wawete heɓde sa yeehi toon noon ɓe docteur ɓe docteur ɓene toon ɓen ɓe ƴeewete soɓe ƴeewi ha ɓe gandi wonde an ka neɗɗo alhamdulillah rabbilalamin ka celluɗo aɗa jogui sembe ɓe totete kayto sa ɗum ndennina ɗum noon naɓa e ɗum to jeeyay emin mbiya on noon wata on jooɗo ha ha e, waktu o e, gasa walla ha e, balɗe sappo e joyi lewru ndu ala kala e joɓɗo tan yo yaa law yo ummu law ya o nartoya kayitaji makko fof o rendinaɗi o naɓaɗ ɗin to jeeya office gonɗo banjon ok Ah, Rohi mm. naa ñëwaat si yow. waaw lan mooy mbiri ñoo xam ne amoon nañ kayit kayit bi. Mm-hmm. par exemple benn weer wala ñaari weer balaa tey wala sax six months balaa tey. Mm. am nañ kayiti wér gu yaram bi. Mm. docteur jox nañ nañ ko. ñooñu xanaa dina jar pour ñu utaat ko. wala tamit su nekkee ñoo xam ne amoon nañ ko last year xanaa boobu dina lay mën a certifié pour décider ñu dem. déedéet xam nga medical certificate ak vaccination card dafa uti. medical certificate di nga gis ne wer bi sax mun nga test ñu won la ne amulo ben febar next month bi rek eh, febar ñëw na nga dem test So liñ leen di ñaax rek kep ko xamne ne mu ngi fi so amone kayit last year ñu ngi lay ñaax bul ne kayit bobu baax na si yow demal ci l'hôpital bi nga sésar sa bop bu baaxa ba be docteur yi woné ne fu mu war nga mëna a dem ñom ñu mëna bind kayit saynal lako ñom rek ñoo mëna a joxe cadeau bobu parce que ñom ñoo lay sét ñom tam fofu la seen xam-xam maccé yow lo dogal sa bopp dara soo ñu ngee ñaax képp koo xam ne pare na pour dem ngir yàlla nañ gaaw dem RVTH foofu rek lañ koy defee te ñu ngee ñaax ñi nga xam ne ñu ngi sori maanaam ñu jege basee ba bansak bu ñu xaar ne ah fii sori na dama bugg xaar ba mu jege déedéet su ma ñëwee kombo rek defaale yëpp déedéet nañ gaaw ñu ñëw parce que ñiy dem dafa bari su ko defee ñoom ñëpp ñu mun a am seen test ni mu waree ñu mun a am seen kayit yi ni mu waree ñu mun a pare pour dem Okay. mu Uh, eh, Fati, mm -hmm. ini kana mina wala uh, Eh, bari dol bi je tumando kar fula komando ya sonu mm-hmm. dol fana fon bi famina ko bilen sero ni talbe bulu gaji ni kanu wala fo awose wasono fate wasono la fo suwa kan wala lafta yo fo bari man ko ne mm. abubakar baraka e kumo men fodan ni ni karo mm. an jartale pour mo yasinandi molma mm. mo dol bi je ndefan wayaje minal mo ne kuma ndalal akonye fo kayto me ngasoro docteur la sire yar kayto seru ndol film manda fodo nyina ndo am jarinte ka kayto men ka hani nga ni amo sede alo wolem courant kana no wati wati le mhm. hanata ya ta bile dani sama sama na courant simu tanone mhm. abete ya ta imur kuta kita kuta kuta yandi mhm. awoto senenda ko hani ukaito ni asoto hani kununem ni bita bi ñinam fana jaar le seru ne asoto ni bita ñina le kuta ma ñini docteur ol dam male siyo sede ya ka foko be tembo men to science science jaro kenda de sitano kaito ni asoto seru o mati ne mañin kaito soto ñinande bolo fulam badi wole anno ay kuma kilim folo kumada ko ani pengu kayito e ro penguro ni ba dilele ka fo na be hapo bita fo wadi juma bani nyindo manke o nyindo ni yake drong sa wosan ni te bita hijola inanda kuta kutan lele ya sutu ata wala fo mole ha wo kumala wallahi pengu mi nyaka adla mo lamna lamna jem waaw so te nyaari pengu in lajo di nga gis ne mene eh, yellow fever hmm. bi si njëkka boobu mun na laa garanti ba ten years fukki at waaw fukki at meningitis bi meningitis mun naa dem ba ñetti at ba years waaye ak loolu yëpp sooy demaat parce que vaccine yi dañ dee am lu ñuy wax lot number hmm. lot number hmm. yooyu dañ dee ciiñ sooy demaat rek even though su fekkee ne yow sax xam nga ne loolu eh, at bi mu ngi ba léegi mun ngaa dem ak moom na nga dem